da ngeen di abonné a jot moo leen vidéo boo xam ne dugal nañ ko ngir a xam li nga xam ne ndax képp koo xam ne nee ñu bëgg ngaa xam fan nga toll yàlla na nga seet sa xol fan la ca yàlla toll gannaaw képp ci nun ku ci nekk sàmm nga boo xam ne daañu la laaj ëllëg li nga doon sàmm te daañu la laaj ñi nga dëkkaale loon ca àdduna xaq yi dëkkaale ndax sàmm nga ko ba mat wala déet daañu la laaj sa xaqi doom ndax am na yoo xam ne doom ak waajur daañu ko layoo ëllëg daañu la laaj say jege ñaale ndax na nga leen waroon a taxawoo la nga leen mën a defal nga leen ko ba ci jàmbur ñi nga xam ne ay julli lañu ne yow loolu moo tax yàlla ne naa la wallazina jaahadu fiinaa lanahdiyannahum subulanaa daañu nga xam ne jihaar nañu ci nun yàlla daanu leen jaarale sunu yoon dina ma ñettaqi lay allahu maxrajan képp ku ragal yàlla na ko war a ragale suñu borom dana la ubbil bunt dana la musal ci sikk yi ak lënt yi kon faw jaam bi war nay fàttaliku dee ngir mu nekk dëgg-dëgg jullit war na ragal boroomam xam ne ne dee ngi ci kanamam te mënu koo jéggi mënu koo teggi fu mu wëlbati ko rek dana ci daanu suuf biir suuf mooy sax waayam na xam ne xel la ay sax rek ñoo koy wéttali ci bàmmeelam na xam ne ñaari malaayika yooyu ak yooyu ñuy wax munkar na kiir ñooy ñam fay toogaaleel te seenu melo na la ko yàlla nëbb na ko wóor ne léegi foofu mu tëdd rendez-vous bi maanaam foo muy kañ la jugati mooy saa yomal xiyaam rek te boobaa bu fa jógee ñaari kër rek a am benn mu dem àjjana wala mu dem safara te na ko wóor ne lépp loo xam ne luy ñëw la rek lu jege la loolu moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne alkayisu man daana nafsahu wa amila lima ba'dal mawti ci am xel dëgg-dëgg daal mooy ki nga xam ne toroxal na ba kanam te xeex ay bànnee xam ba wuute ñoom te jëf ngir la nekk te gannaaw dee moo suñu borom taqtaraba linnaasi xisaabuhum wa hum fi xaflatin muxriduuna bis bi ñuy xisaab nit ñi muy gën a jege rek waaye nit ñi di gën a sàggan rek di fi gën a wan gannaaw adduna nag géej la ñu bari lap nañ ci te ko ci lap ba watul dootoo dellu siwaat ndax lap ci adduna day sàggan loo xol sallallahu alayhi wa sallam nee na yusibu ibnu aadama wa yusibu maahu xaslataani al xirsu wa tuulul amal doomu aadama lu mu màggat màggat lu mu yàgg yàgg ci àdduna am na ñaari jikko ñoo xam ne du tàggu mukk moom lay màggataale moo di xër ak gudd nee na walaw kaana libni aadama waadiyaani min zahabin labtaxalahuma saalisan doomu aadama ku xër la bu fekkoon ne nit am na ñaari xur ñu feesalal ko ko dell ak wurus faw xelam dem ci yeneen xur bu ko ñetteel nee na biir doomu aadama daal suuf rek a ko mën a jomb nee na min annaasi man yamuus nisfuhu wala yanzajiru nisfuhu al-axar am na ci nit ñi ñoo xam ne raw ñu raw goo xam ne bu seen genn wàll dee woon ba dee koy tam genn wàll gi ci des du tax ñu jàjj mukk dellu si dañuy yooyu rek waaye képp koo xam ne sib nga dajeeg yàlla ëllëg yàlla sib na dajeeg yow ëllëg te adduna moom la yàlla gën a wayafal ci magum yoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nay dox benn bis ay saaba ànd ak moom mu dem ba fekk xar mu dee ñu sànni ko mu nëb ba kenn mënu koo jege mu ne xam naa xar mii day seen borom bëggatu ko ñu ne ko ñàkk koo soxla moo tax ñu sànni ko fii mu ne mu ne day ni suñu borom soxlaa dee adduna moo raw moo raw ni ñu soxlaa dee seen xar mii waaw nenu adduna ba nga xamee ne dañ koo peese ak laafu yoo laafum yoo mu wat ko fa yàlla bu fekkonte ne yem naag moom rek kon yéefar du ci mos benn góox waaye bu fekkee ne nit ci loolu lépp mi ngi koy xalaat dana ko dimbali ci mu jëf jëf yi ko yàlla sant ndax mën koo rafetal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom dana xañ nit àdduna bu yomal xiyaamee bu koy fay ne ko àdduna ji kat li ma la ko xañee woon démb du dara lu dul fonk gi ma la fonk rek ak doyadil gi ma doyadil àdduna moo tax ma ëppale la ko na doomu aadama bi bu fekkee ne bëgg naa nekk jullit bu ragal yàlla na xelam di xalal dem ci sukuraat dee ak xar-xarle na xelam di dem ci waxtu wi nga xamee ne yaramam sottiku na ba métti yi tasaaroo ci cëram yëpp te benn cër rek bu dee métti xañ ko jàmm waxtu woo xamee ne nag rawatina cëram yépp métti yi làmb na ko biir ak bitti ba ñaari nag yi bëtam yooyu bokkiku jëm kaw tuñam yooyu la gàtt lam ñam wi ci biir gémmiñam ba cëram yooyu yëpp commencé dee ba ñaari tànkam ni di sedd ba mu may àgg ci putam mi foofu ay mbóot am na fi ak i secret yoo xam ne suñu borom dong nga ko xam ci waxtu woowu la ñuy ub buntu tuub bu waa ji tuubatee kenn dootu ko nangu innama tawbatu lil lazina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin ulaika yatubu Allahu alayhim wa kana Allahu aliman wa laysat tawbatu lil lazina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahadahumul mawtu qala inni tubtu lana wa lillazina yamutuna wa hum kuffarun alquran nee na tuub ki nga xam ne dafa def lu bon gannaaw bi mu jàjju dellu siwaat la ko yàlla may waaye lu ki nga xam ne dafa nuur ci lu bon ba nga xam ne dee taxaw na mu sol na léegi tuub na loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bi jëmm ji tolloo foofu dañuy uub buntu tuubam lu mu tuubati léegi dootu ko nangu ndax foofu ci waxtu woowu la naan jàkk malaayika malakul mawti bi nga xam ne moo koy faat si mu ne bu laaj mukk waxtanu dee bu laaj mukk tiisu dee ndax sallallahu alayhi wasallam li muy tedd ci suñu borom lépp ak li mu koy fonk nga xam ne li mu bind lépp moo ko ci gënal dafa daan ñaan suñu borom di ko waye falal waxtanu dee ak tiitu dee jëlee nañ ci alxasan mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne doon na waxtaane dee ak tiisam ba mu ne ñetti téeméeri jaas yi ñu la dóor dee ko gën a metti mu ne dee gi gën a woyof mu mel ne lu ñuy wax xaska ci arab fent la ko tubaab di wax moo di gis nga euh, xar moom nga xam ne dafa duuf ba duufa duuf am leen ci gannaaw bi mu tëdd tàngaay bi jàpp ko ba deret gi seet ba taq ci leen bi ba wow ba ñuul loolu mooy xasaka mooy suent boo ko jàppoon di ko xëcc ci xar mi leen bi càmpoori leen yi dagg topp ci nee na bu ñuy rocci ruu gi noonu la demee fépp fu nekk ci yaram la nga xam ne moo ci gën a yëg metit noonu lay toppee ruux gi Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu laajee Kaab naka la deemel daf ne ko caru garab boo xam ne dafa fet dell ci dëkk lunk nekk ci biir nit ki ba bépp cër ak bépp barab ci biir yaram bi dëkk siiw na ca bonkal mu am doole ñëglu ko ni ko bif benn yoon noonu la mel ñu gis ne kon tii si ñett yii la benn bu njëkk bi mooy rocciru boobu ñu wax ñaareel bi mooy janloog malakul mawti malakul mawti lu doy waar la waxtu woo xamee ne jàmm bi ne ne ko jàkk xamatul fu mu nekk xolam tax day bëgg seey xam ngeen ne xel jinne sax boo ko gisee te mu fas li yéenee saay saaye doo ko mën a dékku benn sa xel dana réer wala nga dof rawatina malaaka rawatina nag malaaka mi nga xam ne yàlla daf koo xaroo pour ay noonam rek mu di leen naqaral di leen tiisal dégg ngeen ba tàyyi ñu ne sallallahu taala wa sallama naa jibril li mu ñëw ci moom lépp daf daan indi melow nit ku tedd wala melaw rafet wala melaw ku ñu xamoon lu gën a bari ku ñu wax dexeetu alka bii melawam la daan indi ñaar yoon wala ñett la ko ma a gis ci melaw ko yàlla bind dëgg dëgg te sallallahu alayhi wasallam bi mu gisee sidna jibril ci melaw ko yàlla bind dëgg dafa xëm ba mu ximbali ko naa jibril ne ko ay ngal la kon boo jitoon mikaayil na ngay def sidna ibrahima alayhi salaam mas na laaj ma la ko mooti ne ko dama bëgg nga wan ma melaw yi ngay dikkee boo dee rocc ruuxu ku texe bi mu ne ko loolu àttanoo ko bu ma la ko wanee nga dee mu ne ko man bëgg naa wan ma rek mën naa ko bi mu ko feeñoo bi mu xamee xëma xëma xëma xëm ay saa bi mu ximbali ko dafa ne giñ naa ne suñu borom bu amul woon benn mbugal bu muy mbugal ku ko moy lu dul xool la yow mii rek doy na sëkk kon ci mbugal boobu la kon ñetti tiis yooyu mooy tiis yi jullit bu ne war na koy fàttaliku waaye waxtu woo xam ne ruugaa ngi rocciku li nit ki njëkk a gis lan lay njëkk a jàngal mooy ay jëfam jëf yu baax yi ak yu bon yi jëf yu baax yi dana meloo meloo xam ne daan ko waxtaane jëf yu gën dana meloo meloo xam ne gaaw dem dugg safara sax a gën a moo koy gën a jàkkaarloo ñoom ndax ñaaw ak ak xasaw ak naqari ak raglu loolu lépp lu nekk téere bu nekkoon ci xolam mooyam yooyu yëpp bind nañ ko ci waaye attache terrestre yi ko e, dot ci àdduna bi ba tax na nekkul esprit kese moo tax mënu ko woon a gis bis boobu nag waxtu mu tolloo foofu te suñu borom ne fa kashafnaa anka ghitaa'aka fa basaruka al-yawma hadiidun sallallahu alayhi wa sallam nee na annaasu niyaamun fa izaa maatu intabahu nit ñi dañuy nelaw kañ la ñuy dee kañ la ñuy yeewu xanaa bu ñu dee ndax bi mu duggee ci yaram te yaram di ko dëkk fii ci suuf ñu tabaxe ko ci ban moom bokk ca aalamul malakut bi ca leeru yàlla nga xam ne umpalewul dara day xam lépp day nekk fépp kas tamit mënee su koo waxtaane bi nga xamee ne ruux dugg na ci daal di ci kaso boo ne amul bunt amul volontaire amul fu muy gisee dara booba la fàtte ya mu xamoon ci fu mu dëkkoon démb yëpp ba daal di nekk nii nga xam ne noonu doom la noonu la doomu aadama di meree nga xam ne xamul dara ci ëllëg lu ko weesu du ko xam lu ko sori du ko xam loo xam ne miir dox na diggante moom du ko gis waaye waxtu woo xamee ne mu ngi dee ba toll foofu attache yooyu nga xam ne dañ na day jànloog adduna bépp day mel ne moom bëti kese dong dong dong la bu ko defee jëfam yooyu yëpp mu jànloog ñoom jëf yu ñaaw yi la ci moom na koy gisee dana doy waar